nga euh, dundee li nga xam ni moo di euh, dugg ci variant bi fii ci biir Sénégal ak anam bi nga xam ni moom la ñu gérer lii di euh, feebar bi ci jamono ji waaw dafa wane rek li ñu li ñu gisoon depuis le départ mooy que amuñu amuñu suivi ci gestion gestion Covid bi je pense que ça fait longtemps que ñu ngi doon commencé war question variant yi et d'ailleurs même professeur Raoult bi mu fi ñëwee mi ngi doon avertir sur la possibilité sunu dëkkuwaay yi ni ñuy yaree ay animaux mën na indi aussi ay variants ne c'est pas des variants importés mais des variants qui viennent de chez nous donc on savait plus ou moins que cette situation allait évoluer et il fallait pas baisser les bras malheureusement dès que deuxième vague bi estompé wu on a préféré je dirais que c'est vrai que la crise était tendue il y a une crise politique qui est passée par là politiquement on était obligé d'ouvrir les gens ont ouvert, mais on a oublié que, le, que, le, que, le, que la maladie était encore là, que le virus était encore là, et c'est cette réalité-là qui nous, qui nous rattrape. Le relâchement, euh, est-ce que les responsabilités déjà, des naan euh, elles sont partagées Ou alors, comme nous connaissons di defee des leaders d'opinion et tout, que ni euh, njiitum réew mi la moom la ñu daal di imputer lépp luy responsabilité ci troisième vague bi. sa position euh, par rapport ak loolu. je pense que man man d'accord ma par rapport à ça. Olof Ndiaye dafa ne bu bu ndox tuuroo an bàq des wala wala rootiwaat je pense que tout le monde est responsable euh, le président de la République peut-être a fait la faute d'aller d'aller faire une tournée économique mais le président de la République aussi a répondu à une crise politique qui était là je pense que là c'était devenu difficile impossible de continuer à garder le pays enfermé on est resté des mois avec un couvre-feu difficile qui a impacté financièrement le pays, qui a impacté économiquement le pays. Donc est-ce qu'on allait continuer à fermer définitivement C'était des choix politiques et économiques très difficiles. Il faut des fois se mettre à la place de, de l'autre côté des gouvernants. Les recettes étaient en baisse au niveau des collectivités locales, au niveau de l'État central. Les gens avaient de plus en plus du mal à trouver des ressources au niveau international. La dette intérieure sur la su sur la balance donc ce qui fait que c'était un choix très difficile et mais la situation elle est telle quelle aujourd'hui la situation est très très très très grave il y a beaucoup ah, dafa am ñu bëri ñu ngi ñàkk seen bakkan ñu ñu xam officiellement ak ñu ñu xamul dem nañ ba dañuy ut ay place ci morgue yi je pense que lii am solo tey mooy que débat public bi waruñu ko orienter ci débat politicien accusation mm. lii am solo mooy nan la ñuy def ba sénégalais yi retrouver confiance ci li ñuy def li ñu amoon au début mooy ñëpp ànd bokk ndey bokk baay loolu mooy amaat moo gën tey président de la République génn ne Sénégalais yi bu kenn dem tabaski yi à mi Sénégalais yi seen yoon nekk aussi ils ont continué à vivre aujourd'hui la situation est là et c'est pas en stigmatisant qu'on va régler le problème il faut aider les Sénégalais il faut restaurer le lien de confiance entre ce qui est fait et la situation sanitaire qui est dramatique. et et fi ne nii gis nañ ne euh, mesures yu ñu doon jël euh, wax nga ko mënuñu ko imposer d'un coup euh, mais est-ce que tamit c'est une raison pour pouvoir bàyyi population surtout c'est-à-dire euh, imposer leen juste une seule mesure qui disons même mosu fi woon jug est-ce que mën nañ yam ci loolu ci situation bi ñu c'est-à-dire est-ce bi déjà pour sensibiliser ko ci port du masque kese doy na wala imposer ko port du masque kese doy na pour mu daal respecter li nga xamante moom moo di. contexte bi lu mu laaj ci wàllu mesure. moo tax moo tax dafa am solo li ci njëkk am solo mooy que Sénégalais yi gisoon ñëpp a ngi tëb di vacciné wu. donc ça veut dire que bu ñu sentiree danger bi ñëpp a ngi xam lu leen war def parce que tey masque ou pas la solution c' est le c' est le vaccin moo fi nekk parce que au moins tekkiwul ne doo am feebar bi mais au moins ça limite les les les cas graves mais li gën a am solo mooy que il faut ñu wax sénégalais yi dëgg bi dëgg bi mooy que dëkk bi métti na métti na économiquement mais situation bi doy na waar. tey mun ñu kon ne di di di topp virus bi comme ni ñu koy toppee nii mën ñu jël alal réew mi yëpp ak lépp lu réew mi def di ko teg ci euh, gestion virus bi ak nu ñuy kon ne ko contrecarrer maladie bi je pense que ça c'est un débat de vérité montanée qui doit arriver et on doit apprendre su nos débats publics ak suñu ay échange à dire la vérité aux Sénégalais et les mettre en face de leurs tey kenn ku nekk ci ñun heureusement qu'on est en vacances scolaires heureusement que yaa ngi gis ni ñu ngi tëj université yi mais quelles conséquences lay am à moyen long terme sur l'éducation des enfants quelles conséquences à moyen long terme la am crise bi bu continuer ni muy continuer je pense que on va vers des lendemains très difficiles et c'est pour ça qu'il faut mettre les Sénégalais en face de responsabilité man gëm naa ne Sénégalais yi bu leen di waxee dëgg bi euh, sensibiliser leen ils accepteront waxee dëgg bi parce que que ne euh, ci war wax liñ ci war a communiquer euh, révéler ko dafa des wala dafa amul wala dañuy wax leneen loo xamante ni moom moo am. ci dama la dama la jox benn benn exemple xam nga Sénégalais yi y a des y am na cadre yoo xamante ne fa la ñuy gën a discipliné tey tu prends le cadre religieux par exemple le khalife général des Tidianes. disposition yi mu joxoon par rapport à la fermeture des mosquées et tout ba tey dellu si waat si euh, les gens ont dicté il y a même certains qui disent que à ce qui ce qui est euh, quand on continue à avoir un débat public maintenant, on cherche toujours un responsable, un bouc émissaire, c'est le président de la République, c'est les tournées économiques, c'est patati, c'est patata. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est de travailler à conscientiser les Sénégalais pour leur faire comprendre que nous, nous, nous, nous, nous, ñun ñëpp on habite dans les quartiers doo toog benn jour amoo sa benn proche wala koo xam directement qui est décédé à cause de la Covid donc quest qu'on fait est qu'on continue à chercher un responsable ou est-ce qu'on change nos postures pour permettre de de faire face à cette pandémie-là et, et au niveau de de la ville de Dakar euh, lan mooy li nga xamante ni moom ngeen def euh, euh, de de plus par mm. rapport ak li ngeen doon def durant la première et la deuxième vague ci jamono ji lan mooy activités yi activités yi ñun on continue de ko déjà à la base ñun on avait fait le pari de dire que en tout cas si sunu ay responsabilité muy l'école euh, les et collèges ne responsabilité ñun on assure le protocole sanitaire donc gis nga ni ci bac bi on vient de remettre encore une fois 80 000 masques à l'inspection d'académie ce qui peut permettre et 80 000 masques ça va au-delà des lycées et collèges c'est comment faire pour que xale yi euh, euh, a def bac bi dans de ni donc on a reçu on a remis aussi 20 000 masques aux sapeurs-pompiers et on a remis 20 000 masques donc ça continue à mettre l'accent sur cet aspect-là mais mieux encore on a sorti un budget de 2 milliards pour appuyer les les les hôpitaux dañ dañuy wax dañuy amoon objectif mooy na la ñuy fexe bi ñu waxtaanee hôpitaux yi nan la ñuy fexe ba CTE bu Dantec ak CTE bu Abass ndaw ñu mën a ibbi donc c'est plus de trois 300 millions en respirateurs en pousse-seringue en matériel médical bu ñu leen jox juste après avant tabaski pour que CTE Dantec ak CTE Abass Ndao ubbi d'ailleurs CTE euh, Dantec le ministre euh, ubbi na ko euh, semaine dernière on a aussi acquis trois centrales à oxygène mobile pour pour permettre aussi c'est c'est plus d'un milliard pour que au-delà de des hôpitaux ñu mën aussi appuyer les centres de santé et je pense que loolu dafay firndeel aussi li ma la wax depuis le la la la la la la conséquence des choix nekku rek ci posture président si tourné c' est aussi choix yi ñu def aujourd'hui ak de la décentralisation mu jëlee centre de santé ville de Dakar jox ko commune d'arrondissement yi dafa Dakar amatul une stratégie de santé et ça dafa feeñ ci crise bi mm-hmm. parce que on peut parler des hôpitaux on peut parler des CTE mais li gën a jege population yi mooy les centres de santé yi am Dakar te ñëpp xam nañ leen c' est pour ville de Dakar jënd trois centrales oxygène mobile de positionner les centres de santé comme Gaspard Camara comme Philippe Maguilène Senghor pour que mu am ay centrales d'oxygène il peut bouger à temps réel pour appuyer apporter de l'oxygène bu fekkee on en a besoin su fekkee amul on reste en appui en appoint au e pour aider les les e avoir le maximum d'oxygène possible donc ci loolu la nekk et c'est plus de 3 milliards de dépenses qu'on de faire récemment et qui viennent de joindre les autres milliards Euh, résultat boo xamante ni surtout ci côté prolifération wu euh, cas bi gars yi et tout parce que Dakar quand même euh, reste l'épicentre mm. la ville de Dakar je je sais pas ban bilan ngeen mën a jox par rapport à sa est-ce que par rapport ak début bi ak léegi il y eu benn benn baisse mm-hmm. wala mi ngi stagné wala am na am na toujours Dakar Dakar reste l'épicentre mais xam nga Dakar dafa am ñun on est la ville donc euh, y' a y' a. c'est pourquoi voilà euh, ma ngi au la ville mooy les les mhm. ma lay expliquer dégg xam nga boo seetee bi bi bi corona bi njëkkee am toutes les mairies s'étaient génne ay moyens jënd ay masques jënd ay gel tout le monde se mais bu crise bi yàggee rek les gens ont moins de recettes donc ça veut dire que les gens ont moins de moyens d'impacter ci ci ci ci ci ci lutte bi ñu am contre contre contre la Covid donc la ville qui bien entendu a beaucoup plus de moyens peut continuer investir comme on mais à un niveau beaucoup plus bas beaucoup plus proche de population les communes d'arrondissement n'ont plus les moyens d'être au centre de la lutte. Ce qui fait que l'État qui peut, qui peut bouger, il n'y a que l'État qui intervenir, mais la ville essaie de faire ce qu'elle peut faire, mais les communes d'arrondissement, actuellement, malheureusement, financièrement, aucune commune d'arrondissement n'est en mesure d'appuyer parce que la crise a, a vraiment frappé les, les Mais, mais surtout, si nous regardons, c'est ce d'ailleurs, le budget que vous avez bien avant la crise. Il mm-hmm. euh, faut que nous voyons que nous avons gagné en tout cas pour injecter la foofu est-ce que duñu poser wu un peu la responsabilité de la ville de Dakar ak li nga xamante ni jot na ko def réaliser ko. Mhm. pour au moins même si crise bi bu ñëwee indi ay ay li nga xamante ni ay contre-coup am la et tout mhm. xëy na li ngeen di investir peut-être du du nekk en un certain coût. mais euh, tu tu tu fais bien parce que c'est ça le le drame xam nga budget prévision rek la donc euh, tey crise bu boo amee sa recette yi entreprise ñu la koy fay. sa recette personne physique ñoo la koy fay bu fekkee y a une crise économique et que les entreprises ne font moins de recettes ou que les gens n'ont pas de ressources mais ça impacte automatiquement tes prévisions en termes de ressources donc si tu n'as pas de ressources tu n'as pas de quoi couvrir tes dépenses li nga mën def actuellement li la Covid bi permettre mooy y a certains postes de budget yu bëri comme les déplacements comme les voyages comme les cérémonies comme beaucoup de choses qu'on faisait à euh, ça qu'on ne peut plus faire. Donc c'est des choses qu'on annule et on peut faire des virements de crédit pour agir sur, le, sur, sur, la Covid. Mais est-ce que ça peut continuer, Astou Est-ce que ça, c'est viable Aujourd'hui, tey crise économique bi mu wane mooy que bu ñu demee état du Sénégal di jaay ay jaay ay di jaay suuf bu ñu demee état du Sénégal aujourd'hui on a presque plus de la la la capacité d'avoir des dépenses d'investissement parce que sans dépenses d'investissement tu ne peux pas faire de croissance c'est-à-dire tu ne peux pas faire une valeur ajoutée par rapport à ton PIB tu ne peux pas construire l'avenir tu es obligé de gérer au quotidien et et et la crise nous a appris que on a des vulnérabilités majeures comme mm. l'autosuffisance alimentaire qu'on n'a pas atteint comme la nécessité de renforcer notre secteur secondaire ou qui ne sont pas des leviers pour demain, on va continuer à supporter ce qu'ils ont pour au moins 15 ans ou 20 ans et ça c'est un grand drame. gis nañ coow bi jug euh, récemment après les révélations du docteur Nior euh, par rapport ak yenn ci matériel yoo xamante ni c'est pour les yow e ñu jël ko di ko jox li euh, nga xam ni ñoom ñooy privé bi di leen ko jaay information boobu bi nga ko jotee déjà ban jàngat nga ci def. est-ce que vous pensez déjà que c'est une possibilité. d'abord je je je je ne le pense pas parce que moi je suis dans dans l'administration vous administration tout est écrit aujourd'hui dans l'administration je hmm. pense que c'est des marchés qui sont lancés c'est des c'est des marchés qui sont réceptionnés c'est des produits qui sont là y a une traçabilité donc aujourd'hui demain n'importe quel corps de contrôle peut te faire la traçabilité même moi aujourd'hui quand j'entre dans mon bureau en tant que directeur de la DAS la ville de Dakar quand je ferme qui fait le récapitulatif de tout le mobilier qu'il y a dans le bureau. Demain, si je ne suis plus détenu de la DAS, le DAL ou l'inspecteur de, de, la ville peut vérifier avant ma passation de service est-ce que tout ce matériel est encore à disposition. Donc les gens qui pensent que dans l'administration, on peut se permettre certaines choses, je ne le pense pas. Ou en tout cas, c'est risque et péril parce que n'importe quel corps de contrôle peut remonter cela. Mais lui, Amul dara de majeur, de structurant, lui, il y a sans mu jure waxtaanu accusation de vol saa a été le cas Fleury mais mais bu ñu xoolee aussi ci ki nga ki ka wax mhm. nga xamante ni quand même euh, ñëpp xam nañ euh, li mu occupé euh, suma assistance ak place bi mu am ci Sénégal ak moom déjà statut wam et tout est-ce que aussi mënuñu ci accorder benn li nga xamante ni moom moo di yi par rapport li nga xam ni wax boo mooy ñu xam ni peut-être il a des informations que nous nous n'avons pas peut-être peut-être que ce qui ce qui dit je ne dis pas que li dëgg je pense que tey suba ñu ñëpp on a vu la presse il a eu une plainte du ministre et ci information yi am tey si dans certains journaux amul benn élément concret bu mu mettre à la disposition des enquêteurs en plus du moom rek ko ko wax y a des journalistes qui ont pignon mhm. sur rue qui l'ont et d'autres personnes qui l'ont mais je pense que aujourd'hui ñun mënuñu continuer astu di def cinq pas en arrière di kon defaat defaat defaat defaat cinq pas en avant defaat cinq pas en président Macky Sall bu muy commencé euh, mandat il a commencé sous le sceau de la transparence indi fi CREI indi fi OFNAC on a tous ces corps de contrôle là jusqu'à aujourd'hui même pour mener une opération aussi simple on n'est pas en mesure d'avoir un débat transparent sur cela je pense que si eux ils pensent qu'ils peuvent faire cela et que échapper à cela je pense qu'ils se trompent demain les gens utiliseront le même corps de contrôle pour vérifier ce qui a été fait mais pour moi c'est un qui peut être tranché rapidement par la justice, par nos organes de police qui ont fait preuve de sécurité, plutôt que ça occupe l'actualité parce que ça oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi Disons aux Sénégalais d'aller se faire vacciner parce que la situation est grave. mais est-ce que ça ça ça empêche aussi euh, que bu ñu waree euh, joxoñ li nga xamante ni moo di gestion bi comme on le fait souvent ñu daal di ciy taxaw parce que aussi je pense que ce sont des xamante ni mënul manquer pour ñu mën a euh, yeneen étape mais bien sûr xam nga moi moi je ne suis pas pour ce pour cette facilité là moi euh, pour moi aujourd'hui la situation n'est pas ce ce, ce combat de coq là entre le ministre ou ou un autre euh, les accusations sont très graves aujourd'hui accuser le gouvernement du Sénégal le ministère de la santé de vendre du matériel c'est extrêmement grave et je pense que c'est au gouvernement de poser les actes pour pour sa seen bopp bu ñu ci weesoo loolu wees le président Macky Sall dit que il a mis 1000 mais aujourd'hui demain dans deux ans s'il y a changement je pense que le, le premier gouvernement qui va arriver pourra faire l'état et sortir tout ce qu'il y a lieu de savoir je pense qu'aujourd'hui pour moi la priorité vu ce que j'essaie de la situation sanitaire du pays la priorité c'est comment lutter contre ce virus là comment endiguer cette vague matérielle là pour le reste pour moi c'est pas ça l'essentiel du débat parce que y a des de contrôle qui peuvent facilement trancher cela. Mm-hmm. et implication wu acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, en tout cas jàpp nañ ni ñoom ñoo nekk war a nekk au devant de de la scène de de li nga xamante ni moom mooy gestion bi est-ce que gis nga ko déjà mooy ñi ñu war a impliquer que mu nekk des acteurs communautaires ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, wàll wi di ay médecins et tout euh, surtout aussi classe politique bi ñu bañ a xaajaloo nekk benn bloc Euh, est-ce que déjà gis nga ko ci évolution bi. non gisuma ko ci évolution parce que dafa am une une une rupture nag et deux fois yëpp président de la République moo koy indi xam nga dans la première phase de la gestion le président la République dafa gën lancer un appel à l'unité au toute l'opposition au tous les corps pour que ensemble pour dire que le danger est là ñëpp wuyu ko ñëpp jàppale ko. Mm. je pense que dès qu'on a eu la première accalmie si la njëkk def sa tournée sa tournée euh, mu njëkk def la première tournée économique. alors qu'il aurait dû appeler les gens faire le bilan faire le bilan de la Covid parce que Covid bi li ci gën a doy waar mooy que dafa ñuy wan ne àdduna bi dugg na ci benn cycle bu du ci mës a génnati léegi. en 2001 on avait les attentats du 11 septembre mu indi une crise sécuritaire ça a changé de choses dans le fonctionnement du monde en 2008 on a eu une crise financière on s'en remettait à peine les grandes économies s'en remettaient à peine là en 2020 on a une crise sanitaire donc c'est vrai qu'aujourd'hui il on a une crise majeure et nos économies sont fragiles c'est pas pour rien que lui-même a parlé de résilience donc quand il a réuni tout le monde ñëpp ànd ak moom on aurait dû faire le bilan toog waxtaan mais suñu économie à partir de maintenant au lieu de parler d'émergence on se positionne sur la résilience pour faire que notre économie soit maintenant protégée par rapport aux crises qui interviennent de manière récurrente il a entraîné une cassure aujourd'hui on est dans une situation purement sanitaire l'enjeu aujourd'hui c'est la capacité pour nous à contenir ce qui se passe c'est-à-dire plus y aura des contaminations plus nos urgences seront saturées et plus on fait face à l'hécatombe et li koy wane mooy la létalité c'est-à-dire plus il y a des gens qui sont contaminés plus le nombre de morts augmente aujourd'hui on bat tous les je ne parle pas des sur au ciel hein mm. ñu ñëpp nekk dans des quartiers moi j'étais à Gendal la dernière fois mais c'est le de morts est invraisemblable ça n'a rien à voir avec les chiffres dans la gestion de cette crise-là. On a eu la première vague, on a eu la deuxième vague et la troisième vague est totalement différente parce que parce que c'est le désarroi total parce que y a pas d'anticipation parce que y a pas de suivi on a oublié que le virus est rappelle qu'il est là et ce que loolu aussi day tax euh, peut-être ñu xool comme lu ñu bett la euh, le l'État du Sénégal le chef de l'État xoolaat li nga xam ne moo di programme surtout ci wàllum investissement pour xool li nga xamante ni moom mooy nu muy euh, jëlee secteur li nga xam ni moo gën a prioritaire mu daal di ko fay dugal pour peut-être bàyyi li nga xam ne moo waroon nekk agenda wam mm-hmm. topp lu jëm ci crise bi. mais sa euh, ça va au-delà de de de ça ça va ça va dans la dans la dans la gouvernance globale du pays parce que tey aujourd'hui lan mooy dépense prioritaire toutes les dépenses sont prioritaires tey boo jëlee nga ne je mettre euh, tey on oublie même 500 milliards dans l'emploi des jeunes je vais mettre 500 milliards dans la santé te alors que il y a même mois 9 mois un an le président de la République moo toog digg conseil des ministres mu ne au ministre attention. il faut faire attention il faut que ñun on travaille à la rentabilité des investissements que nous faisons tey boo demee le parc des expositions de Diamniadio Dakar Arena euh, euh, le, le, le le le le terre c'est autant d'investissements majeurs que l'État du Sénégal a fait et qui n'ont eu aucun levier sur notre croissance aujourd'hui on en est arrivé à un président qui dit j'économise sur le carburant j'économise dans l'acquisition des véhicules même si derrière j'achète a nouvel avion mais quand l'État en c'est parce qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, avec les emprunts qu'ils font, ils ne financent pas des investissements, ils ne financent pas l'avenir. Au contraire, ils financent les dépenses courantes. Et cette situation-là, moi, quand tu lis la loi de finances rectificative, milliards de recettes exceptionnelles que l'État a tirées de la vente de fonciers au niveau de l'aéroport. Donc aujourd'hui, c'est un vrai débat sur notre économie qu'il nous faut. Mm-hmm. C'est un vrai débat sur ce qui est dépenses publiques. on va investir Parce qu'au-delà de la simple notion de dépense, il y a un problème beaucoup plus grave. Aujourd'hui, nos étudiants sont, sont, en train de rentrer chez eux. Donc ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas d'année académique stable à l'université, avec un quantum horaire qui se respecte, avec un contenu euh, pédagogique qui se respecte. Au contraire, combien de débats on n'a pas fait ici sur la violence à l'université, sur ce qui se passe à l'université, et qui fait que ça Mais quand des conséquences Donc ça va au c'est vraiment un débat sur la gouvernance du pays sur ce qui est essentiel sur la notion d'avenir sur notre rapport au temps sur notre rapport au travail sur notre rapport à la performance et c'est tout ça qui nous interpelle malheureusement aujourd'hui on est pas là aujourd'hui on est là à gérer au quotidien en espérant que cette crise-là va passer et on va reprendre encore la politique et, si par malheur mu continuer ni mbir mi delluwul ginnaaw yaakaar nga ni des élections pourront se comme lu ci mel ni local bi en 2022 je souhaite je souhaite vraiment que que que les je le souhaite parce que parce que oui parce que parce que bon d'autres pays l'ont fait hein aujourd'hui boo demee les pays européens si aujourd'hui euh, tey euh, au niveau des stades les championnats qui ont repris et tous les gens l'ont fait euh, je prends l'exemple des matchs de football où maintenant on utilise des stades à 30 000 40 000 personnes parce qu'il y a le pass sanitaire aujourd'hui il faut pousser les gens à se vacciner et si on se vaccine il faut reprendre la vie normale parce que sunu économie attanuñu situation bi bi ñu bëgg jëm wala situation bii ñu nekk surtout élection locale il faut def ko parce que gis nañ ni que notre pays a besoin de respirer démocratiquement et je pense que tension boobu li ko indi mooy mooy le fait que defuñu élection man mi nekk mairie xam naa ni que les mairies actuellement sont essoufflées neuf ans de sept ans de mandat huit ans c'est trop et je pense que le moment est venu de de faire des élections pour que mairie seen bopp mën a mën a reprendre vie mën a reprendre un programme parce que ça fait deux ans trois ans que les gens travaillent avec te li ko indi mooy que def ñu élection man en tout cas en tant que acteur du monde local en tant que acteur politique en tant que sénégalais j'espère que ces élections auront parce que ça va permettre à beaucoup de choses de reprendre de respirer et c'est très important pour le pays actuellement. ak li nga xam ni moo jëm ci sa candidature euh, fële ca mairie bu euh, bu bu Saint-Louis euh, lan moo motivé boobu les décisions. d'abord suite logique par rapport à ce qu'on avait fait en 2014 parce que man bii du sama première candidature mm -hmm. en 2014 avec sunu samay xarit yi ma boobu j'étais au parti socialiste ah, man dama mus a contester le fait que euh, coalition nationale yi ñoo ñuy imposer des candidats au niveau local euh, au et je pense que loolu moo amoon Saint-Louis et man ak une beaucoup de jeunes on avait créé une coalition qu'on avait appelée Ëllëg si biir pour faire entendre notre voix par rapport Euh, à élection locale yi mais surtout ñu arrêté di revendiquer l'alternance générationnelle sans pour autant mën a impliqué wu au niveau local et je pense qu'on avait fait un très bon résultat on était arrivé quatrième lors des dernières élections et aujourd'hui je suis convaincu que que que que ce pays-là ne peut se faire sans sans le local. Aujourd'hui, il faut réconcilier le national et le local. Notre économie en a besoin, euh, notre démocratie en a besoin et que aujourd'hui pour tous les acteurs un rôle à jouer ou une parole dans ce pays-là il est important d'avoir un langage local et je pense que loolu moo tax ñuy continuer et je pense que on travaille à cela comme on avait travaillé maintenant on a on est conscient que l'opposition doit être ensemble parce que il faut qu'on apprenne à s'oublier dañu bëgg que que que opposition yi booloo nekk benn ñu am benn coalition parce que enjeu bi ñu am mooy que vraiment en 2024 que ce pays-là un changement et que pour une fois ñu continuer suñu démocratie continuer avancer plutôt que situation bi ñu gis. mais yaakaar nga ni opposition bi ñu gis euh, opposition bi fi nekk euh, vraiment pare pare na pour euh, àndandoo booloo def benn coalition yi. oui bien sûr parce que nag xam nga yaa a opposition e opposition je pense que aujourd'hui kan ça y d'aller à élections dans au sein de l'opposition ils savent qui peut prétendre aller à des élections et qui ne peut qui ne et pense que parrainage bi passé woon na lu bëri y' a différence entre am war a diriger un mouvement et avoir un ancrage et je pense que élection locale occasion la pour ñu bëri ñu revenir à la réalité et puis xam li a nekk et ñu échanger ensemble travailler ensemble parce que sans cela euh, la coalition Benno Bokk Yaakaar reste machine très très puissante quand il d'élection mm-hmm. euh, mais di la remercier encore une fois Astou di wax ni que euh, la situation est très très grave dans le pays mm. et que aujourd'hui il faut penser livrés à eux-mêmes di lancer un appel au Sénégalais aussi leen wax ni que fii leneen lu ñu fi wax lu vaccination dañuy yar nañu donc il faut aller se vacciner il faut se vacciner il faut se vacciner. Mhm. merci beaucoup Aba Mbaye donc moom lañ fi dalaloon en seconde partie ñu daal rek tëj li nga xam ni moo di jotaay bi donc li li mooy li ñu leen indiloon tey ci seen waxtaan mu nekkoon actualité euh, Covid 19 ñu teg ci tuuti lu jëm ci wàllum euh, politique donc ñu leen di jox rendez-vous demain di leen jaajëfal surtout yéen ñi nga xam ne yéen a yoon ñu suivre ci télé